def Macky Sall magum xamoon naa ko lay bañ a doon l'observateur nañu moo taxit teel naa yëglu teel a démb ba ñuy ubbi ca jam ñaajo ndaje mi ñu jagleel waxtaane wàllum ndox ci àdduna bi mu di neuvième forum mondial de l'eau fa la waxee moom Macky Sall li ay jafe-jafe ndox mën a jur ne ay conflit ci àdduna bi soleil national tuddee ko l'alerte de Dakar mu di yëglu gu ñu teel a fii ci Ndakaaru ngir mën a moytu musiba yi mën a tukkee ci am ndox journal bi xamal ñu ne atum 1990 ak léegi junniy yi yoo dégg ci àdduna bi mu di ay catastrophe bu ñu dee téeméer la juróom ñeent fukk yépp am ndox ko sooke ñoom kilifa yowoon ca ndajem démb ma soley nee nañu sàkku nañu ci réew yi am doole ñu bal Afrique bor yi mu gàddu te mu tukkee ci wàllum ndox ñu dox dem ci Sud Quotidien mi xëy moom it dañuy wax ne kii di Macky Sall ci turu président union africaine gi mu doon sàkku na ci réew yu g yi li ñuy def ak di ko wax ñu bàyyi ci xel bu baax a baax mbirum ndox mi ndax doon na biir kuréel gii di G20 xam la ne it ni juróomi nit yu ñu jël ci àdduna bi ñaar ci ñoom mënuñoo jot ci am ndox ni mu ware mu ne it lu mat ñaari milliards yi doomi aadama yu teg téeméeri million ci àdduna bi ñàkk pexe tax na ñuy jëfandikoo ndox mu baaxul journal l'info xëyee information bi tuddee ko l'alerte de Macky Macky Sall nee na li xew ci ndox mi bu ñu ci sàkkuti pexe dafay gën di doy waar rekk di dem ndax nit ñaa ngi gën di yokk dëkkuwaay yi gën di màgg kàdduy président Macky Sall yooyee moo nekk ci xët mu njëkk Le Quotidien kii di Barthélémy Diaz maire bu Ndakaaru moom it ay kàddu yu ko ci ndajem ndox mi ñuy amal ci Ndakaaru mi ngi ci quotidien Barthélémy Diaz nee na neuvième forum mondial de l'eau gi ñu def ca jëm ñaaju forum des terroirs la waaye du forum des états ci les éco mënuñu fa ñun mënuñoo bokk ci ndaje moo xam ne dañ fay toog rek di waxtaan weesu nañu jamonoy wax jamonoy jëf la toll moom Barthélémy Diaz ba tey mi ngi ci Walf Quotidien la mu fa wax moo di ak réeroo du am diggam ak Macky ñii réeroo ba kenn xamutul fan la sa morom féete moo di waa bokk gis-gis ci diwaanu Mbàkke Source A nañu ko bokkatul ci bokk gis-gis ñu gis ci Vox Populi président des cadres républicains du Sénégal di Maxime Montero yéenekaay bi dañuy wax li tukkee ci ndaje mi mu woote woon démb ci altine ji ca Nioro jëmoon ci wàllu parrainage bi Vox Populi nee nañu ndaje la moo xam ne fu nekk la militan yi jóge woon ca Saalum demoon wujju ko li mu leen sant moo di ñu góorgóorlu ba ci wote législatif yi ñu jëm ñu am fa majorité absolue ni ko président Macky Sall bëggee moom Maxime Montero yéenekaay bi nee nañu ñaawlu na fay li mu tuddee ak ñàkk gi yenn responsable yi bi wane keroog ba président Macky Sall demee ca Saalum nee na ci juróomi responsable ya fa yëkkati kàddu ñaar rek ñoo fa wax luy dëgg lu ñu mën a dégg waaye ña ci des ñëpp lu ñu wax président Macky Sall dara du ca dëgg wax nañu lu leen neex wax nañu ay sos te ñu ci dara li rus lu dëgg mi ngi ci source wa ubbil yéenekaay bi ca mairie bu Parcelles Assainies journal bi nee nañu équipe municipale bu bees ba fa nekk seen première session ba ñu ko convoqué bu ñu demul luye ji ay chaise nit ñu duñu am fu ñu toog li ko waral nee nañu moo di ca mairie bu Parcelles Assainies dara amu fa chaise yaag ordinateur yaag fauteuil yaag taabal ya lépp la gaañiroñu yóbbu ñi nga xam ne ñooy adjoint yu maire bu bees bi ba ñu leen falee ba léegi mënaguñoo dem ci seeni bureau ndax bureau yee dara fa amul li ñu libération ne moo am ca Sonatel ku ko dégg jàpp sa gémmiñ yëral xët mu njëkku yéenekaay bi lu toll ci 990 millions moom lañu ñu fa caxat-caxatee sàkkal ko pexe benn mafia bu ne woon ci seen biir moo doon manipuler système vente carte yi daanaka ñaari at a ngi mu nekke ko libé dañoo xamale ci woowu li am na ñaan ñu ci tegagum loxo yoo xam ne ci agence boulevard de la république la ñu ne woon